Zik FM waxtu ñetti waxtu li gën a fees ci bopp xibaar yi am na parti bu bees bu juddu doomu réew mi la tudd ñi ko sos booy membre yi nekkoon ci parti bi wala ci coalition bi nga xam ni mooy Macky 2012 dinañ ci dellu soit ci leeral gi ñu ko leeral ñoom ci kanamu way taskatu xibaar yi. des sox itam ci dajé bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu agriculture fii ci Sénégal xemmeemteef gi mooy lépp lu ñuy jëfëndiko ci mbay doon lu ñuy euh, dunde euh, fi ci Afrique lolé des na ci délu soit itam ci biir xibaar yi des wax itam ci biir xibaar yi laneen lu bi ji jëm euh, ci tam xarit gi dëgmal si ak itam yokkute gi am ci walu dugub bi ci marché bi waaye téwul faaw jëfëndiko ko lekk cere oblige dinañ ci délu soit itam tagat yaram président Lamine Gueye yene a kaay El Hadji Ahmed Aïdara comme les républicains do réew le le le parti tout le lu le wala coalition bu Boudjoudou, bu mooy ñi sosoon Macky 2012 démb la ñu ko xam ne koy taskatu xibaar yi kon di yokkute gu bees gu am ci géopolitique bi ñu ngi ko xam ne ci bi ñu a jàkkaarloo ak yeneen i défi en a moment d'enfant dañu jàpp dañuy nekk ay coalition électorale maanaam pour fal la léegi dañuy jëm ci beneen mbir te mbir moom ñu jëm nit ñi dañu toog war a toog waxtaan ñi nga xam dañu bokk gis-gis pour ànd booloo def benn coalition politique vingt six pour cent lañu amoon dañu war a uti ji li ëpp loolu maanaam ñaar yu toll noonu te pour ñu am ko ñun ñi doon dem ci askan wi dañu war a delluwaat ci askan wi coalition bu yees bi ay misëram nag bokk na ci ñu tabaat président Macky Sall ci bopp réew mi a a lépp loo xamante ni ay valeur la yu ne ci réew mi li koy indi mooy li nga xam ni yàlla def na si gis-gis bi nga xam ne ñun am nañ ko mooy ànd ci ngor ànd ci kersa mais tamit lépp loo xam ne dafa dem si justice sociale ñu ànd dox doxe ko ni ñu gisee politique bi ak politicien ni ñuy doxalee ci jamono yi di li nga xam ne ëllëg warul du nekk jàngat boo xam ne war nañ ko jàngal suñuy rak ak suñuy doom yi nga xam ne ñoo war a nekk ëllëg su fekkente nag ca njëlbeen ñoom nañ ne seen bëgg-bëgg mooy falaat président Macky Sall waa coalition les républicains doomu réew mi liste bop ci élection législative yu 2017 ngir nak ñu am ab assemblée de rupture. jamono jooje euh, ci diwanu Mbàkke amna ben pétition bu fa door ngir bëgg askan wa signé ko ngir dénoncer ak ñaawlu gestion bu maire ba nekk foofee ci diwanu Mbàkke Bara Gaye moy initiateur bobu le pétition. Abdou Manane la ci weer wi ñaari fan la ci def ci Mbàkke musu fi nek fi may wax ak yow weer bii passé fukki fan ak ñett la treize la fay salaire yi oto yi ramassé mbalit mi oto yi du duus yëpp gaare nañ ndax amuñu carburant buñ ci def ndoxu mairie bi dañ coupé nañ ko lu mën ñaar fukki fan ci nawet bi ñu passé pompul dëkk bi deful ay opération saupoudrage wala joxe ay moustiquaire loolu maire yëpp dañ koy def moom mënu ko def fourniture scolaire yi marché bi moom moo ko dem joxe kenn xamul kan la ko jox moom ci boppam moo dem ba Ndakaaru moo indi fourniture yi ci ab camion yóbbu ko ci école yi am na yoo xam sax waa école yi dañ ko ko delloo parce que c'est pas conforme ak ñoom ni ko laajoon école sëñ Massamba bi mi ngi ci def lu mat fanweeri million ak ñett fi ñu toll nii xale yi ba léegi ñu ngi toog seen kër mënuñu jàng xaalis rek moo ko intérêt ak turu maire de Mbacké muy voyager di def ay marché di def ay deal loolu mooy dëgg gi li ma wax ci déclaration bi lépp je le maintiens loolu mooy dëgg defal micro trottoir nga laaj waa Mbacké am na ñoo xam ne dañ naan wéy waay nañ ñu indil i bëggee ñun dañ doon daw ak daay tàbbi ak bënn Bara Gueye mooy wax loolee nii dañoo doyal ca ba nga xam ne business boppam rek ka bàyyi foofee ci mbubboo gëm yi mbubboo nekk ga mu nekk itam maire bu Mbacké maire ba nag Abdou Mbacke Ndaw la école chef de service urbanisme bu Je carte de devis. carte de devis, ko Moustapha mo def moko lancé DRP ouvert ñu ci journal ñëw commission dépouillé ni diw mo gagné diw moma ñu defal ko contrat avance mu dem continuer liggéey te diw moma avance bi jusqu'à présent dara te mi ngi continuer liggéey c'est que Baara amut information il n'a ni l'information et il ne maîtrise pas les textes léegi nag man doo nekk un perdant politique di wax ak man ma lay tontu du ma ko def du ma la tontu. lii kàddu yi leer yu bàyyeekoo ci maire ba di Abdou Mbacké Ndaw ba mbay doon activité commerciale bi ëpp solo ci dënd Afrique ak itam euh, li ñuy lekk lépp doon luy bàyyeekoo ci Afrique bu fekkee bëgg nañoo suqali agriculture agroalimentaire ci Afrique. moo wundu benn ndaje boo xam ni ñetti fan la ñu koy amal fii ci Dakar Fatmata Diop ba nga fa woon. développement bu mucc ayib ci Afrique gi suñu bëggee nag mu jaar yoon faw rek ñu daal di génnee yenn potentiel yi nga xamante ne continent bi am na ko ngir mën a indi koom-koom gu mucc ayib loolu nag moo di gis-gisu njiitu euh, banque africaine de développement buñ sukkandikoo euh, ci Akinwumi Adesina mu ne nag banque yi dañoo war a xam euh, seen rôle ngir mën a financer li di rek mbay mi. Afrique faaw mu jëfandikoo ressources yi mu am ci suufam ndax tey ak juróomi milliards ci jéggaani ay produits yoo xam ne ni dafa jëm ci wàllum lekk te pourtant de lu toll ci fanweeri milliards rek moo koy doy ngir financer développement am Augustin Matata Aponeyo Pompo di premier ministre bu république démocratique bu Congo daane rek Afrique dafa war a dem directement ca urgence ngir rek mën a génn ci lee di ñàkk bi BAD dafa war a bàyyi ginnaaw doxalinu administration bi nga xam ne ci la yëngu jëm ci li nga xamante ni moo di volontarisme fi mu rek ñu bàyyi wax ci te jëm ci li nga xamante ne moom moo di jëf waaye it dakkal procédure yu guddi yi nga xamante ne ni du mujj fenn ngir mën a am résultat wu développement yu baax ci terrain bi. téeméeri doomi aadama ñoo teewe bi leen ndaje ci wàllu mbay mi ak tamit agro alimentaire ndaje bu nu mel nag njiitu réew mi Macky Sall nee na sax dañ koo war a def at bu jot ngir rekk gën a mën a sukkali mbay mi ci Afrique ngir mu indi koom bu mucc ayib. Atmata Diop ndaje ma njiitu réew Sénégal président Macky Sall ñu war a dundee léegi ci wàllu mbay fi la fi amone indi lu yes ñu méngoog ni jamonoy doxé ngir la dundé ñu mën koy bayé ci dend Afrique bi ñu téw la sëf ci kàddam. il nous faut dans une démarche individuelle. li ñu soxla jamono ji moo di rek ay démarches individuelles ak yo xamante c'est collective yu ñuy may rek ñu mëna xalaat suñu mbay mi ci benen façon. boo xamante ne du nekk activité par défaut boo xamante ne ñàkk pexe moo tax nit yi di ko def et bu ñuy wax nag euh, tamit ci wàllu financement wu campagne agricole yi li ñu seetlu moo di rek banque de crédit agricole yi ñoom rek ñoom ñooy engagé wu ci côté état yi te boobu du ñu gis benn banque commerciale waaye tamit euh, soxla nañ li nga xamante ne moo di maîtrise de l'eau maanaam naka rek la ñuy maîtriser li leen di ndox mi euh, ci wàllu mbay mi te du ñu rek dépendre ci li nga xamante ne moo di jaww ji continent boo xamante ne ne dafa am ay potentiel yu mucc ayib ci wàllu hydrographie donc dañoo war rek outil ji li lee di ndox ngir zone yi nga xamante ne ne moom la ñuy defee li lee di mbay nii muy kàddu yi président Macky Sall yokkaat na ci tamay mu ni li tax mu amoon euh, yéeney Sénégal am autosuffisance en riz fii ak atum 2017 ca njëlbéen ñu bëri dañu ko jàppe woon kàddu yi politique te safaanoona lool ak politique waaye Demne chale biwak tanak teknisyen yi, tel lo le, sak mwen yi chen menmte fon nat. Nyote ou lup rezan maki sal.

participer ci li nga xamante ne moo di politique bu autosuffisance en riz bi eh, gis nañ ne jamono ji commande yi sax jënd nañ yëpp fi ñuy wax amul benn commande boo xam ne des na importateurs yi jënd nañ ko et eh, tamit dañ leen définiral loo xamante ne ne ku nekk importateur ceeb fii ci Sénégal laata ngay def importation faw nga jënd li nga xamante ne moo di ceeb bi ñuy bàyyi fii ci vallée bi loolee di ay xalaat lu am solo la Afrique réew mu nekk la ngay dundee ñu bàyyee ci yokkute la waye mënut ñak ay financement moy li tax ñu ubbi ay buntu nge fexé décrocher yooyu lay financement kaddu yi bayiko ci ministre bi wax lu jëm ci wàllu kom ci gouvernement bu Sénégal Amadou Ba. tay ji li ñu gis mom moy gouvernement Sénégal def na ci alam ci gis nañ ni production bi yokku na ndax bu ñuy wax léegi 1 million de tonnes ba paré ñukoy dundé ci biir Sénégal loolu lu am solo benen jangat biñ ci am mom moy tay ji dafa woor ni Afrique amna na Afrique amna ndox par contre Afrique amu xaalis xool aussi mode de financement mooy diggante banques yi ak béykat yi ban rôle la ci état bi war a pour gën a yombal rataxal diggante bi gën ko yombal ba nga xam ni dinañu mën a am di financer euh, agriculture am nañu yaakaar ni buñ fi jógee ak échange yi ñuy def dinañ ko mën a tënk xëy na réew yi jublu ci ba nga xam ne du yàgg Afrique di mën a dundal boppam mais Afrique mën aussi di bay di jaay bitim réew lu kilo dugub juróom fukki dërëm lay jar ci marché bi itam xarit gi jege say li tax ñu yokk ko te nawetu ren bi dugub ji ñor na waaye bu ñu ko góobee itam bojjaguñu koy li tax jot ci yombagul ñiy defar cere ñi ngi jënd kilo dugub bi juróom-ñaar fukki dërëm xaw na metti waaye tam xarit oblige faw ñu jënd ko reportage Soda Mariam Gueye benn produit kese am ñaari njëkk kilo dugub boutique yaa ngi koy jaayee juróom fukk te moo ne am na jigéen ñoo xamante ne ñu ngi ko jëndee juróom ñaar fukki dërëm mu toll buñ soq da nga ko jaayee deux cent cinquante buñ soq booy yóbbee si machine bi soq ba pare da ko jaayee trois cent nañ jënd dugub bi kilo trois cent cinquante tamxarit bi dañ koy yokk muy dugub ginaar lu nekk du gis nga tabaski lu nekk ak restam daal lu ñëw dañ koy yokk dañ ciy profité ñoom. moo tax it explication ah, na fi ñu jëndee bi ah, tam xarit bi ñëw sax dafa fekk dugub wàññeeku ndax dugub adi temps yi tabaski gi la gënoon a fekk si ins bii nii. waaye ñëpp d'accord nañu ni dugub ren amagul ci marché bi. instant yi xam nga kii bi nawet bi nawet bi ni ko quoi gars yi dañoo toll ci góob moo tax instant yi dugub bi yegg seegul quoi. Ah, génn ndànk-ndànk waaye bu daaw bi moo fi ëpp inch bi nii bu daaw bu ren amagul dugub nag ak céréale la goo xamante ni munta ñàkk bu fekkente ni bëgg ngaa togg ak cere ju neex ci tamxarit yi am na ci ñenn ñoo xamante ni sax xam nañ ci dara ndax kat ak lu mën a xew lu ne cere ji moom du leen raw waaw bu feet amee am ñuy tox ndoolu def naka su dul noonu démb euh, brigade bu euh, service d'hygiène ba ca Kaolack nangu na lu toll ci fukki ginaar ak juróom yoo xam ni xawoon nañoo nëpp ñu ko doon jaay centre guidage euh, infantile euh, et familial dal dinañuy amal démb ben ndaje formation bam solo bu ñu jagleel taskatu xibaar yi way bi moy xex lépp lu jëm ci walu violence sexuelle ndey xadi Diouf nga fa woon. ak ñetti junniy kaawu victime lii di violence sexuelle mi ngi gën di law ci réewum Sénégal xibaar boobule nañu koy tasee des loolu ci jaar ci yoon ndax sàmmontewul benn yoon ak lii di éthique ak déontologie professeur Serigne Mor Mbaye psychologue. bind bi léegi léegi. day mel ni daal ak caay-caay ngay nettali. li tubaab di wax film pornographie ngay ngay nettali. te yow fekkewoo ko duñ laa nettali rek. te la ngay nettali li muy yàq ci moom. ci mettit wi ko dal. loolu moom jéggi na dayo. violence yi mën a jur mandarga ci doomu aadama bi nga xamante ne moom moo ko dund waaye it ci sunu société xale yi xam ne du am fukki at ñu siif leen ba mu jële ci ëmb césarienne la jëm na la wóor ne cëri xale bi matagul pour attan ab ëmb donc dee mën na cee xaj ba tax na faaw ñu ñaax ñi yëngu ci wàllu yëpp ñi ko yittewoo di ñi nga xamante ne ñoo ŋànk kaaraange gi ndax ñoo njëkk a jot ci victime bi jamono bu namee yóbbu mbir mi ci yoon loo tax ñun ñu jóg dox ko ci ñi xam ni ñooy ñooy atte dox ko ci policiers yi leen ba ñu xam nan la ñuy tertoo ki xam ni moom lañu ñu sàkku ak i way juram kàddoom nan nga koy taataane ci anam bu rafet ba man koo jébbal juge bi mu xam li nit ki wax li ci jaadu ak li ci jaaduwul. anam gi ñuy tasee xibaar goo xamante ni dafa ñeel violence sexuelle dafa war a tënku ci ni mbir mi amee taskatu xibaar bi waru cee yokku waru cee wàññi lii lee sax moo sabab lël gi nga xamante ne CGID daal dina ko amal jëmale ko ci ay taskatu xibaar ngir ëllëg bu ñuy bind ñu teg ko ci li éthique santaane ak déontologie. ëpp nag ci li ñuy wax abus sexuel gox yi ñu ko gën a nemmeeku mooy Thiès Touba Dakar lu toll ci ñeenti junni kaay yi nga xam ni nemmeeku nañu ko ci ñaari at yi la ñu weesu. jàngkat yi bàyyeekoo ci kii xam-xamam màcc jëm ci wàll booba muy euh, psychologue nekk itam ci observatoire di xeex lu jëm ci maltraitance ak abus sexuel Aminata Mbengue suñu observatoire yi ñu taxawal maanaam fii ci Dakar fële ci Thiès ak fële ci Mbacké euh, maanaam am nañ ci benn ak quatre cent personnes ay victimes yoo xamante ne ñëw nañ ci suñu observatoire yooyu noonu donc ñëw pour ñu taxawu leen ci wàllum xel waaye aussi ci wàllu euh, euh, seen yaram ci wàllu médical ak ci wàllu appui psychosocial nëpp nëppal bi yaakaar naa war na doy donc chiffres yooyu noonu dafa ñëw wax li nga xamante ne association yi ak ONG yi moom la ñuy daj ci bi ak sajib. Nou mou mette, se vik se myon yon de violans seksualist. E kabou yi bade kouti, amen yo tamben. ci diwaanu Diourbel conseil municipal bu Mbàkke daal dinañuy voté benn fonds boo xamante ni bi dañu ko jégleel rek fond bi ñuy wax BCI jagleel ko lu jëm ci wàllu éducation ay fourniture yu ñuy dimbale école yeesalaati école ni ki itam ay daara gën leen a mën a taxaw bàyyi nañ ci xel lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar ci ay daara foofee ci commune bu Mbàkke leeral yak Abdoulaye Diagne dañuy jot ci BCI bi lu tolloog douze millions yu manqué tuuti ñu wax ci tabax ay salle de classe moom la doon voté loolu tax doomu mbàtt yi toll ci juróom-ñaar fukki millions yu teg juróom-ñett ci suñuy koppar. defar école sëñ Massamba Mbacké ci valeur u 31 million génne nañu ñaar fukki million pour def ko ci njàng mi. fukki millions yi juróom dañ ko jël jox ko école yi. juróomi millions yi ñu jël ko jox ko daara yi. 15 de fourniture scolaire au distance. école jumtuwaay yu njàngal njàngale yi doon dimbal eh, ci waajuru ndongo yi monsieur Zale di kenn ci ku ñu toftal eh, ci inspecteur éducation ak formation département wu Mbàkke yi fourniture yi dañoo cher euh, dafa nekk euh, loo xam ne lu diis la ci parents d'élèves buñ ko jotee ni comme ni ñu ko jotee fourniture dafay dem directement ci élèves ki jiite bokk moomeelu diwaanu Mbàkke sar sarale eh, ba ci daara yi téeméeri daara lañ ak fukk ak ñaar lii ñu leen jox du luñ di may du luñ leen di sarax la jox leen juróomi million te bu déwénee dañu ñaan yokk ko noonu yi jamono yi aw këyit wuy ŋàññi doxalinu maire bi et dëkk bi ñi nga xamee ne ñoo amal lu ni mel ne bañuñ ci dara dinañ ko jéebaane ba ñi ko war a yëg yëg ko wàllu leen ab du lay jeñ mbàkk yi Zik FM ak yaram dañu ci ànd ak président Lamine Gueye salaamaaleykum waaleykum salaam El Hadj ci euh, handball bi am ca biir gaar yi suñu gaynde yi démb dañu daanu tey ji la ñuy génnaat jàkkaarloog euh, champion bi dalal xel waaw démb moom dañoo raté première sortie bi ndax Ouzbékistan moo ñu dóor euh, fanweer ak juróom benn ci fanweer ak ñaar mu mel ni nag yëf yi amul réppi ndax tey jii bu 20 heures jotee ñaareelu sortie bi deuxième match Sénégal digganteem ak Bulgarie euh, du nekk lu yomb parce que Bulgarie euh, non seulement mooy euh, dalal compétition bi mais également moo yor raay gi fi mu toll nii suba ci ajuma ji ñu enchaîné ak Nouvelle-Zélande mais ñetteelu adversaire u gaynde yi balaa nag samedi nekk dernier match de poule bi Sénégal ak Guadeloupe mu mel ni challenge trophy mondial bi euh, dana dem ba ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ñu ne di weeru octobre euh, mu mel ni tamit euh, handballu Sénégal daf koy découvrir ndax gulet ñu participer ci tudd ci compétition bu ni mel. éliminatoire mondial 2018 yi suñu gaynde yi fukki fan ak ñett ci weeru octobre bi ñu def mën lañuy ñuy jogante ak Madagascar. waaw mu jëm octobre wala novembre. novembre novembre novembre. Euh, mu jëm ci ñaareelu tour éliminatoire Russie deux mille dix huit yi nga xam ne mooy ubbi buntu euh, phase de poule yi nga xam ne war naa am euh, gaynde Aliou Cissé yi nag war a dem ca Madagascar dajeek ñoom le treize oct le novembre. balaa nag ñuy recevoir ñeenti fan ci gannaaw muy le 17 novembre fii ci Dakar ki génn ci match bo ci ñaari match yooyu day dem qualifié ci ñaar fukki équipe yi nga xam ne. Nous ah, sommes qualifié troisième tour bi nga à ay poule lañ koy def euh, juroomi poule yu ñent équipe ñu joué euh, championnat aller retour euh, juroomi jitu nak ñom ñoy représenter Afrique ci coupe du monde Russie 2018 objectif suñu fédération bi mooy euh, qualifié ci CHAN bi am ci Rwanda waaw boo xoolee nag ñoom fédéraux yi daal euh, pàcc bu yaatu wala bokk euh, gëm nañu trop wala bëgg nañu lool Sénégal bañ a toog ci compétition boobu nga xam ne mooy dajale football yi nga xam ne moo nekk ci biir réewu Afrique yi gannaaw ñaari participation yu njëkk yi nga xam ne Sénégal qualifié woon na. Euh, mu mel ni ñetteel bi daf ko raté Mauritanie moo ko éliminé tey jii nag ñoom fédéraux yi gisuñu benn yoon ne daal Guinée war naa mën a baare Sénégal euh, moo tax démb maître Augustin Senghor mi jiite football bi fii ci réew mi dem fekki xale yi Moustapha Seck yi ca Toubab Jalaaw fa ñuy waajalee Euh, pour Dal, ñaax leen tamit sept cent francs yoo xam prime supplémentaire yu fédération génne euh, pour jour bu ne bu ni qualifié ñu qualifié nañu million bi nga Le euh, ministère des sports prévoit pour qualification boobu match de retour bi Sénégal Guinée ñu ko jàpp samedi fii ci stade Demba Diop Sénégal war a dabu ñaari but maanaam dugal lu ëpp ñaari but te bañ a mu nekk lu jafe ci football waaye nag lu nekk la lu mën a nekk lañ alors ñu wax ci euh, nawetaan ah. waaw nawetaan dañuy dem fële Kolda foofu nag yëf yi euh, xumboon na fa trop ci demi-finale yi fa amoon diggante euh, équipe bii di Medina ak Serekemo Euh, mu mel ni daal kenn desul woon ñëpp nga woon ci stade régional ba euh, ki mujjee dóor nag mooy Sérékomo euh, mu mel ni moom depuis ñu créé ko ba léegi 1992 mi ngi soog a qualifié ci wàllu final entraîneur ba nag fi mu ne nii coupe bi rek la teg gët moom Alpha Goudiaby Alpha Goudiaby ñu teewlu ay kàddoom moom ak Pape Kadiali waaw match bi daal nu ma leen ko waxee rek dégtee kontaan trop waaw ndaxam euh, ñun Taraké moom bii suñ deuxième fois ñuy dem final 2012 demoon nañu final cadet senior ñi ñàkkoon ko ren jii ñu ñëwaat final donc te final xam ngeen final nawetaan moom saa su ne foo ko dégg fu ne fet la donc euh, fu mu toll ni ñun amuñu dara lu ñu wax bu dul euh, di kontaan di jaajëfal tamit waa Medina Chérif xamal loo leen ko bu ñu découragé ndaxam équipe bu ponkal lañu yor te ñoom dëgg toog nañu ci saison bi mais defee na leen départemental yi te je sais mën nañ ko jël ndax xam Medina Chérif ku ko xool xam ni équipe bu taxaw la te bokk na si équipe yi dàkk bu mën a dawal ballon fii dàkk mën a fubal ndax am seen entraîneur du ko tuuti entraîneur bu mag la waaw tey daal daf fekk rek euh, yàlla nekk suñu boor et puis ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi siy gërëm yàlla di ko si ñaanaale tamit mu jàppale ñu yëkkati ndam bi voilà kon mu nekk deuxième euh, finale pour euh, ASC Serecomon Euh, Omar Niamaajo moom mooy entraîneur bu benen équipe bi Merina mom nak euh, regretté na euh, dal défaite bi nga xamné équipe am am mhm. alors ñu wax légui président ci Ligue des champions. waaw Ligue des champions démb la ñu ndar képp ñettelu bëccëg bi match bi ñëpp doon xaar diggante Paris Saint-Germain Real Madrid 0-0 le mujjé mu melni wa Paris dal faaw ñu defaat ay jéego bu féké bëgg nañu nek ponkal ci diwaanu Europe ñaari équipe bi nak ño tollo ay poñ ku nekk. am nga juróom-ñaar euh, mu des nag match retour bi nga xam ne Paris moo war a dem bi yoon Madrid loolu le 3 novembre bi di ñëw pour ñu xam daal kay na kan mooy mujjee ci première place bi démb tamit euh, Manchester City moom gagné na Séville ñaari bal ci benn United dafa def match nul fële ca Moscou digganteem ak euh, CSK Atlético Madrid moom dóor yu yaatu la dóor Astana ñeenti bal ci dara tey ji Europa League ñetteelu journée bi la ñuy jongante am na match boo xam ne nag am na ay internationaux sénégalais dajeek FC Sion Bordeaux mooy équipe bu ñoom capitaine Lamine Sané Henri Saivet ñoom ñooy dalal euh, Moussa Konaté wala bokk Liverpool dina dajeek Rubin Kazan Marseille moom day dem fekki Sporting Braga euh, Nipro moom mooy dajeek Saint-Étienne bu Bayal Sall Monaco moom mooy recevoir ca Louis de Karabakh euh, mu mel ni yooyu ay match la rek ci ñetteelu bëccëg bu Europa League ñu jeexal ak Arma international sénégalais la moom nag ma nga fële ca Angleterre Queen's Park Rangers am paay jafe-jafe ndax depuis début saison ba léegi benn match la football euh, xëy na moo tax Lille tamit euh, bëgg ko jël moom nag waxtaan naak ñoom 2016 la contrat am di jeex euh, mu mel ni daal waxtaan naa naak directeur sportif bu Lille waaye waxtaan naa Hervé Renard mi yor Lille mel na ni daal bu yëf yi continuer nii moom Armand Traoré dina mën a dellu ca France fa mu doore woon Euh, pour nekk joueur Lille loolu dina baax ci moom ndax nag joueur faw nga am temps de jeu maanaam faw ngay football sinon nag da ngay dellu ginnaaw. maa ngi lay jaajëfal président Lamine Gueye ñu xuus ci xibaar